te noonu ne Macky Sall fii nga fi dajale mille ne yow dangay defar Covid bi coow lii Touba joxe Modou Ndiaye joxe Pata joxe ñu dajale ko nga ne non pour entreprise yi nangam ak nangam waaye yow Macky mars bi yaa fi dajaloo centre du Diouf ne way jeunes yi xam naa leen dégg naa leen naa leen jox emploi naa leen nangam ak nangam yow joxe woo emploi yow Macky soo xoolaatee sa trajectoire tu es parti de rien ba tey li nga doon nga gis des sénégalais yuy entreprendre partir de rien ba créer ay emploi lu toll ne des médias ak solo bi mu am ci mim réew lu toll ne des médias ak Macky boo xalaataatee yow 2011 le rôle le rôle que les médias ont joué pour que yow nga mun a egsi au pouvoir aujourd'hui le rôle que les activistes ont joué pour que yow nga mun a egsi au pouvoir aujourd'hui ñoo doon nekkandoo assemblée ak place de l'Obélisque ah? ñoo fa doon nekkandoo 19 heures nga taal sa oto dem ànd ak sa délégation ñun ñoo fa doon toog bu police di dóor ñun la doon dóor su lacrymogène li doon dal ñun ñoo koy noyyi ñun ñoo ko doon encaissé xam nga lu amoon ci yow a guerrier ngeen waaye le que la lutte continue bu dul yéen du sotti de jàpp leen ci de bu leen bàyyi de ah dimbali leen ñu de téye leen de sama gars yi waaw waaw waaw waaw waaw musoo nooy lacrymogène musoo xam liif biñ la fi bëggee woon tey ci sëriñ si nga demoon di ñaanu pour ñu baal la moo tax xamoo lu kaso di neer moo tax pour yow jàpp doomu aadama ku am njaboot ne yow dugal ko si kaso bi bàyyi ko foofu noonu muy taxawal parce que da nga bëgg yow dem ba say élection nga jàllale ko comme dans du beurre parce que leer na la na yow Macky local yii enjeu bi mu am ñun sénégalais yi duñ la may dara waxuma la maire de waxuma la maire mais yow conseil municipal sax doo ko am ci gox yi le Sénégal est devenu un état policier on ne respire plus tu tues les entreprises ñaata jeunes ñooy liggéey des médias ñaata jeunes combien même bu dee cent lañ sans yooyu noonu ñaata nit indirectement la ñuy dundal nga bëgg ko liquider avec tout ce qu'ils ont apporté ci suñu démocratie pourquoi parce que le, au mois de mars ils ont été l'une des télés les plus remarquées ci jox la parole à l'opposition ci montrer les vrais images ci montrer les manifestations moo tax ngeen bëgg leen liquider waaye yow nag ñu àndoon ak yow 2011 nag ñu la doon wane 2011 quand tu faisais tes trucs ba ñu ñu ngeen fay fisc au contraire nous sommes pour que les di fay ay fisc nous sommes d'accord pour que les entreprises di fay ay fisc loolu dañ ko war a saytu mais yow ci Covid bi yaa fi ne entreprise yenn yi dama leen di exonérer de taxes yaa ko fi wax bu weesoo loolu le même traitement bi nga defal des médias est-ce que moom nga defal yeneen maison de presse yi est-ce que moom nga defal yeneen maison de presse yi parce que si on se rappelle Sidy Lamine a perdu beaucoup de ses grands journalistes a perdu beaucoup de ses biens que lii la ko Abdoulaye doon def Macky, tu es en train de faire les mêmes pratiques. Macky, tu en train de vraiment montrer li leer ci askanu Sénégal ak monde entier bi que ne tu es un dictateur démocratie ñor la mais doo liquider des médias encore une fois la question ne pas central à Bougane entreprise bu ay ndawi Sénégal di liggéey la Macky Sall mënoo jox kenn liggéey amoo xam-xamu jox Sénégalais yi liggéey amoo da nga la nga lajji politique de jeunesse da nga lajji politique de l'emploi da nga lajji mais s'il y a yoo xam ne parti de rien on crée des trucs jël yeneen sénégalais ñu fay liggéey di dundal seen njaboot boo ko mënul soutenir mais bu ko rey te au même moment ay Eiffage ak ay ñeneen entreprise française yaa ngi gën a ñëw man ci dama bëgg a comprendre comment se fait naka la fisc di doxee parce que les entreprises yi nga xamante ne bitim réew la ñu jógee ñu ñëwee Sénégal ni ñuy amee doole. ni ñuy àndee ak doole ni ñuy bëree ci biir réew mi bu fekkee ne taxes yooyu nga leen di teg yi ngay teg sénégalais yi ñuy kule ñoom sénégalais yi seen entreprise yi di daanu sénégalais yi di bëgg a dee ah loolu jaaxal nañu war nañ ko saytu war nañ ko saytu Macky il faut une fois pour tout wax ñu tu es président de quel pays tu la président de quel peuple bu fekkee président wu sénégalais yi nga kon eh bien ngir yàlla liggéeyal pour Sénégal. liggéeyal pour Sénégal su dee président beneen réew nga ñu xam ne beneen réew ngay représenté bu dee gouverneur beneen réew nga wala chef de canton beneen réew nga nga wax ñu ko mais liggéeyal Sénégal fonkal sénégalais yi joxal sénégalais yi seen gëdd duñ ko nangu duñ ko setaan parce que des médias ñun ñoo ko moom c'est une télé c'est une radio c'est un groupe de presse bu ay sénégalais di liggéey bu ay sénégalais di tedd kon duñ seetaan nga koy liquider mu amaat encore des milliers de sénégalais yuy demaat au chômage et des familles yu war a souffrir